ay fan ci ginnaaw ñu nemmeeku ay grève yu méttee métti ci école yi Sénégal yëpp ñu gis ne li ko waraloon mooy mouvement syndical des professeurs yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaanu Sénégal ñoo bankoon seen loxo ci wàllum njàngale mi ndax la dañoo tënkoon ay accord ñoom ak ki nga xam ne ñoom ñooy le gouvernement du Sénégal ainsi que le président de la République du Sénégal ñu gis ne depuis boobu ba léegi depuis atum 2018 le président ainsi que le gouvernement du Sénégal respecté wuñu ces accords loolu nag moo waraloon ñu bank seen loxo ci wàllum jàng meeg jàngale mi loolee nag moo waral ndongoy Sénégal yi mer ba futtu génne di def seeni manifestation comme niñ ko gisee fan yi yëpp tey nag fii ci diwaanu Bambilor élèves yi dañoo amoon doxab ñaxtu ñu tàmbali ko démb ci altine ji tey ci talaata ji ak suba ci alarba bi ñu décrété benn grève 72 heures génn nañ école yi nga xam ne ñoo nekk aux environs ci diwaanu ci nañ les écoles privées ainsi que toutes les écoles publiques yi nga xam ñoo pour manifester seen colère pour wane que carrément dañoo bëgg anam yu donc nous ko ñu le président de la République du Sénégal ainsi que le ministre de l'éducation nationale ñu wàllu ñi nga xam ne pour ñu sauver li nga scolaire Cerengence.